asalaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaam Sen Sport 221 dañu koy tàmbali English Premier League bi match bi doon dox diggante Liverpool ak Manchester City foofu la ca Anfield la ñu ko doon amalee dañoo match ndam demul ndam dikkul dañoo témboo maanaam gannaaw bi nga xamee ne kat Man City mooy njëkk jiitu dugal bit bi njëkk ci match bi ci 23e minute kii di Stone moo ko marqué John Stone. moo marqué bit bi njëkk ci matt bi ci 23e minute waaye nag Liverpool dellusiwaat ci match bi ci 50e ak benn penalty boo xam ne kii di Mac Allister moo ko daal di marqué bi ñu dawale tuuti nag gardien wu Manchester City bi nga xam ne mooy Ederson daal di dénk mam ab ab gaañu gaañu ban daal di koy génnee. ki nga xamante ne kon mooy Ortega moo dal di ñëw yéggale li nga xam ne mooy jogante yi waaye nag ñu gis na ñaari équipe bi ku ci nekk ci ñoom ñaar attaqué nga rawatina Liverpool ci li nga xam ne mooy minutes yu mujj yi bëggoon na dellu siwaat ci li nga xamante ne mooy dégg nga maam jogante gi gagné ko waaye nag gis nañu ne li nga xamante ne mooy défenseur u Man City bi seetaanuñu benn yoon voilà ci loolu kon la jogante gi dal di jeexee benn ak benn kon nag fi mu ne nii bu ñu xoolee li nga xam ne mooy classement bi dafay am soppeeku ndax Arsenal bi nga xamante ni démb moo dogoon toogam négandiku ca kaw mooy wéy di des ca kaw fi ne nii kon li nga xam ne mooy bopp classement bi dafa soppeeku ndax Liverpool moo jiitu woon nekk ci bopp classement bi premier place maanaam Man City moo nekkoon ci ñaareelu place bi léegi nag fi mu ne nii Liverpool moom moo ñëw ci ñaareelu place bi Man City dem ci troisième place bi Arsenal moo ngi ca kaw mën nañu wax ne daal ci différence de but képp la nga maam ci la li nga xam ne mooy wuute bi am ci diggante Liverpool ak Arsenal ndax Arsenal plus 46 la daal di am moo tax muy jiitu Liverpool mi am plus 39 waaye ay poñ moom ñoo ko daal di tolloole ñoom ñaar nag ñooy jiitoo Man benn poñ. ci Angleterre googu ba tey ñu gis ne kat ki nga xam ne mooy Pape Matar Sarr moom nag dafa dal di am li nga xamante ne mooy ab passe décisif tey jii ak équipe am boobu lay di Tottenham. nga xam ne tey ji dafa am yaatu seen diggante ak Aston Villa 4 buts à 0 moom mi nga xam ne keroog dañu ko tegoon ci banc bi joueloo ko ay minutes yu néew ci li nga xam ne mooy dernière minute yi tey ji dafa titulaire voilà dal di def li nga xam ne mooy passe décisif ci bit bi nga xam ne kii di James Maddison moo ko dal di marqué voilà moom kii di Pape Matar Sarr kon bu ñu xoolee day fi mu ne nii am na lu toll ci juróom-benn bal ci tànkam bi ñu tàmbalee saison bi ak léegi am na 3 buts yoo xam ne dal di koy marqué waaye itam def lu toll ci 3 passes décisives moom kii di Pape Matar Sarr l'international sénégalais bu ñu demee France nag ñu gis ne kii di Habib Diarra taskati xibaar yi xam la nañu ne jamono bi Chelsea football club kat mu ngi koy topp voilà te xam ngeen ne Chelsea bu bëggee joueur Strasbourg war na ko mën a yomb ndax kat ñaari équipe bi mën nañu wax daanaka benn lañu léegi nag ñu gis ne moom di nga maam ci ndorteeli saison bi la am na yeneen équipe yoo xam ne bëggoon nañu ko waaye nag ñii di Strasbourg dañu lànkoo ne duñu ko jaay ndax rejeté nañu ñaari offre yoo xam ne bu ci nekk toll na ci 25 millions d'euros benn bi mu ngi jóge woon ci Lens beneen bi jóge ca Wolverhampton voilà kii di Habib Diarra moom kon jamono bi Chelsea Football Club mooy équipe bi nga xam ne jamono bi moo ci nekk ñu xool nag fi léegi li nga xamante ne mooy transfert yi ana lan mooy xew ndax kat Strasbourg bi ngeen di bàyyi xel rakku Chelsea la rek ndax ñi moom Chelsea ñoo ko moom te it joueur Chelsea am na ci xam ne ñu ngi leen ablé foofule jàpp naa ne bu fekkente ne kon ñii di waa Chelsea bëgg nañu ko mën na yomb ci ñoom dinañu wey di topp mbir moomu léegi bu ñu desee ca France googule ki nga xam ne mooy Kylian Mbappé moom tey ji dañu koo dégg maam tegaat ci banc bi gannaaw bi nga xamee ne kat gis nañu ne match yi weesu moom voilà li ëpp maanaam ci championnat dañu koy teg ci banc bi duñ koy joué la wala buñ ko joué la it dañ koy teel génne tey ji moom mën nañoo gis ne daanaka 15 minutes la joué ci match bi nga xam ne ñoom doon nañu ko am ñoom waa Paris Saint-Germain seen diggante ak Stade de Reims match boobule kii di Mbappé ci 73 a dugal moom ak Ousmane Dembélé sax voilà waaye nag dañoo témboo jongante ci ndam deux partout daal di jeexee waaye Paris Saint-Germain nag commencé jaaxal nit ñi ndax fan yi nag nit ñu drobee point dafa xaw a doy waar lool ndax kat li nga xam ne mooy seen ñetti match yi ñu mujjee football daal mel na ne ndam jafe na leen lool ci li nga xam ne mooy championnat ca France googu la ñuy des ba tey ak Lille gi nga xam ne tey jii dañuy doon sargal ki nga xam ne mooy Hazard bi nga xam ne tey dafa demoon ngir teewee ji match bi nga xam ne ñoom waa Lille ñu koy am voilà ci dimanche bi seen diggante ak ñi di waa Stade Rennais Eden Hazard bi nga xam ne ancien joueur équipe boobule la voilà nga xam kat def na fa yi am solo rawatina ci atum 2011 bi nga xam ne ak ki nga xam ne Gervinho ak ñoom Moussa Sow gañe woon nañu li nga Ligue 1 bi voilà def fa yu am solo voilà jamono bii nag dafa delluwaat foofu la kon doon seetaan jongante googu la waaye nag ñu dal di koy sargal voilà ci li nga xam ne mooy match boobu kon ñoom waa Lille doon amal ci dimanche tey boo xam ne ñëwuñu ci woon démb mooy ki nga xam ne mooy Amath Ndiaye Diédhiou moom dafa amal li nga xam ne mooy ab doublé niki biig la woon voilà ak équipe bu yees boobu di Real Valladolid Amath Ndiaye Diédhiou xam ngeen ne mu ci Real Valladolid jamono bii ci janvier bii la fa dal di dem waaye daal ay mbiram a ngi dox ndax juróom-benn match képp la fa football agum de waaye marqué na ak benn passe décisif maanaam 6 match 6 but mu ngi ci tànk moom kii di Amane Ndiaye Diédhiou ni ki démb ci 44e ak 89e minute ci la dugal li nga xam ne mooy doublé boobulee